affaire u 16 février kenn déggoo ma tontu ci ma ndax dama xam ni posé ko comme problème ci la connerie parce que l'opposition peut inviter n'importe qui Nous, Il y a pas les policiers. Nous cherchons nous beaucoup poser problème. Le week nous côté. Le week nous côté. Parce qu'il y a une l'opposition, qui nous inviter au début. Ça, il faut le dire. N'importe peut-être, bon, c'est une stratégie. opposition bi moo doon lan ñoo ko wax te ci làmmiñu Ablaye Wade lañ ko jaarale moo di bu leen def face à face ak kon dañ leen di fetal ñëpp dégg na ko parce que ci meeting lañ ko waxe bu leen def face à face ak policier yi ku ne dégg na ko dem nañ ci ba wax ni fetal ak seenu welo benn la bu ci ne rey de nit loolu dégg ngeen ko wala déggu ko il faut dire la vérité waaw kon nag naka la ñuy wëlbatee lu ndakaaru yépp dem ñu tànn fukki nit ni ñoo ko ne kooku naka lay man nekke lu ndakaaru yépp def man ñàkk naa ci policier boo xam ni ku ko gën ci man amul te ñu arrêté ji sama njaboot man reyal nañ ma ci policier boo xam ni sama rangoñ génn na ndax ñu mu meloon ci man ah waaw lu ndakaaru yëpp def ñu tànn fukk ñu leen neex rek ñu leen yéena

matagul weer benn kilifa wax na ma ci kanamu Pape Malick ci kanamu Moustapha ak ci kanamu yeneen ñi seede te ku xam sécurité la te mësuma gis sérieux bi ñu ko waxe parce que kenn xamalu ko fay mu ne ma ku leen mën ñu firi affaire ba ku dul suñu borom waxul dëkk mu ni ma ku la ni mën na firi affaire ba ku dul suñu borom waxul dëgg mu ni ma parce que sécurité sécurité rek la ñun ñëpp ñu génn suñu revolver loxo ba mënuñu fetal ma ni ko keroog bu bal tàkkoon ci Ndakaaru ma bàyyi yàlla ak yonent bi